moom mooy Momo Dieng bu leen fàtte ni le 6 juillet ma nga ca CICES bu leen fàtte ni le 5 juillet xale yi nga xam ni ñooy xale yi Abba Show ña nga ca Grand Théâtre donc euh, dafa mel ni xale yi ñooy bëgg a ñëw fi ñu toll nii xale yi Abba Show gi euh, kii ndax xàmme ngeen ko moom ma yaakaar ni moom Grand Théâtre lay liggéey. ça fi na nga xool fi ngay làmb de làmb waaw <laughs> xool fi ngay ok léegi nag fi ñu toll nii. RAS yaa ngi ci sécurité. ayca gars yi kon excellent ok ok gars yi excellent ok yaa ngi xoolal yi fii ok gars yi excellent e, équipe baa ngi noonu. Ah. est-ce que fii wóor na xaaral xaaral xaaral c'est bon leen yëg leen fobeere nañ ko yëg leen nañ ko yëg comme comme comme ni ñuy def équipe nationale noonu laa def xale yi ay tubaab laa leen def xam nga fu ma leen yóbbu ni regroupement laa yóbbu xale yi xale yi regroupement laa leen yóbbu ñu regroupé seen xel dal répétition Thiès ñun équipe nationale lañ équipe nationale lañ équipe nationale bu leen du décevoir di leen reetaan loo <laughs> ayca maa ngi leen di ziar damay jox seen responsable mu daal di euh, wax daal di sànni ay kàddu donc euh, du ñàkk ñu dugg ci li nga xam ni moom mooy événement bi lan moo ñu fay xaar ak tey lu ñuy def Thiès ak organisation beeg yëpp fu mu toll moo géré lépp mooy numéro un bu équipe bu Abba Show donc ñu bàyyi ko ah, monsieur Balla Diop nga daal di ne der nag daal di der ah, àdduna ngi lay déglu. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum réew mi. du ñu def ko mbër yi ay ginnaaw bañ sant yàlla yooyu day eh, bëri ah amuñu temps bi sax <laughs> alors donc euh, ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di wax ni euh, ñu ngi préparé ñu ngi ci dernier virage bi mhm. yegg si nañ si c'est le cinq incha allah mhm. donc kon yegg si na def nañ li ñu waroon def yëpp comme li mbëri di wax jël nañ suñuy cumbukaay entraîné mhm. ñu def nañ li ñu war a def bu bis baa ñu léewtoo gars daan leen dem ñibbi ayca mu ngi noonu am na solo donc mën nga ñëw présenter équipe bi euh, ñu xam kan ak kan la parce que gis naa fi ay ay bopp yoo xam ni <laughs> <laughs> c'est dama lay de national la nekk nii. national xam nga lu tax. duma ma sori ñaar laay wax. kii Tambacounda la jóge la jóge mhm. kii ma nga jóge ca Ngumba Ngéwul. Ngumba ca Louga Lougaloo. Mhm, mhm. jeex na kon national la ngi nii. loolu jeex na jeex na ñeneen ñi si des ñëpp tasaaroo. xanaa gisoo Kolda fële. <laughs> <laughs> ay see. <laughs> kii nag kii moom mu ngi jóge ville. ah cum kii ci banlieue bi. waaw borom banlieue bi see tët ay ca xale yaa ngi noonu donc. Balla tey dañuy dem ñu ñëpp Thiès. waaw tey Thiès lañ jëm Euh, pour def euh, suñu suñu suñu dernier réglage. ñi mm-hmm. nga xamante ni c'est un peu technique. Mm-hmm. donc on a besoin génn tuuti. Mm-hmm. Euh, changer air relancer bopp bi changer air. nekkaat ci beneen dimension. et puis def def def filage technique. bu ñu paree nag ñibbi si songu grand théâtre ayca donc fi ñu toll nii grand théâtre tey ñi nga xam ni ñu ngi ñuy xaar am na ñu yor seen i billet bu ma juumul blog yi rek moo ci des. ngeen bañ a fàtte ni yéen waa Thiès bi ñëwee ñu ngi te résidence Lat Dior dañuy répété bu ñu fa tëju dañuy répété waaye ñu ngi ciy ànd ak ñooñu nga xam ne ñoom ñooy waa salaam euh, transport ñooñu ñuy transporté euh, ba grand théâtre bi passé euh, am na hôtel bu mag bu nekk fii ci Sénégal boo xam ne suñu partenaire la donc loolu nag dinañ ci ñëw fa la ñu war a nekk jeudi vendredi ba samedi loolu yëpp dañ ci ñëw mu gën a yaatu mais tey Balla lan moo ñu war a xaar ci grand théâtre tey waaw waxoon naa fi daaw surprise ca CICES mhm. ren surprise laay waxaat et surprise yu dàq surprise ya amoon la spectacle de qualité. son et lumière. lépp dina am son. Hmm. dina am lumière hmm. dina am créativité. Hmm. dina am effet. dina am lépp li ñu soxla ci spectacle. ñii ñëw pour reetaan bu ñu ñëwee du ñu am lenn lu leen xam ne. leen euh, de xam naa ko. mën ngeen a woo sapeur ñu taxaw ci bunt bi. nit dina ree ba fàtt génn. ok waaw kay ba pare nit dina jënd tikkeem reetaan ba pare di génnaat dolli la ndax li mu jëndee daa tuuti ok léegi dama leen wax benn ah loolu am na ci saal bi am na ci saal bi koo xam ni euh, boo reetaanee reetaan yu ëpp li nga xam ne moom nga jënd euh, da lay jox benn facture boo xam ne da loolu moom am na ci saal bi pour ngeen bàyyi ci seen xel yéen tamit bu baax a baax a baax keneen du wax fii euh, ci bi ndax ñu ngi xaar naan ki ma gis ni du si moom lan lay wax wala ay kii du général wala ay kii keneen du wax même cuq sax du wax mais cuq il faut nga wax cuq il faut eh, euh, Balla joxal ma sama micro cuqu mais cuqu am teel ay eh, cuqu damaa bëgg rek ñu waxtaan ci euh, Taib Socé wala Papa Iran Ndaw xaw ma Balla permission ban la lay jox nga waxtaan ci Siteu wala il faut nga am ci kenn ko waxtaan rek ñu tëj émission bi Balla kan nga koy jox hmm. waaw ki la gën a jege ci sa bopp. Siteu ah, non non eh, eh waa Régis yoon nekkul suñu répétition <laughs> non Siteu Siteu ah, pour lan pour lan ama non non. acca pour lan. waaw. lu tax non non mais non non damaa bëgg non non non bëgg kii ah, focc rek. léegi li ñuy def hmm. Hmm. Ah, ñuy indil ñi nga xam ni ñooy nekk grand théâtre mais da nga ciy denc ñëpp ngeen ñu tayib kese. Eh, rabbi sarax sadri wa yassir amri waxlul uqadatan uqadatan eh, min lisani di leen wax ni eh, eh, eh, dara du yomb dara du yomb ndax bu la cinq dana mel ni Batoor Gueye ma demoon damel xam nga Batoor Gueye dafa fekk damel toog mu damm ko mm-hmm. ñu ni ko tey nga dee Batoor mu daw génn dëkk bi mm-hmm. loolu lay mel le cinq ah, cuq day na cuq day na non non non est-ce maa dimbali li day na doo ma dimbali rek te yàlla tax loo soxla doo dimbali rek ci cuq dimbali ma rek da jëndaat bi waaw lu mën naa ko fayaat mais cuq euh, kii euh, oustaz laay wax sax oustaz dafa mel ni euh, fi ñu toll ni réew mi yàqu na ci ay fecc. Eh, aba laaj nga laaj bu am importance. Mhm. laaj bu am importance. Mhm. xam nga xale yi bu ñu demee ba naan zëzël zëzël. Mhm. raas gis raas gis. Eh, ndake jaxato dina meññ te borom yëgul sama yër ko <laughs> bët bu bi ci tànkulal bii raas gone yi du màtte du woqe dafay tërërër saa waa ji yëral ah, loolu nga yem ah, ci cuq loolu nga donc euh, cuq bu demee ba ci cuqali rek war na faa yem bu la neexee Mia li nga xam ne mooy tëj weekend start bi maa ngi kontaane équipe bi nga xam ne ñoom la àndaloon yëpp ah équipe bu euh, weekend start euh, maquilleuse ah, nga xam ni moom mooy régisseur bi ak caméraman yeeg ñi nga xam ne ñoo preneur de son yeeg réalisation maa ngi leen di di leen bëggee téléspectateur yi toogoon seen kër yéen tamit maa ngi leen di di bëggee waa calcio shop nga xam tey ñoo génn fi nga xam ni fii génn calcio ma ca West boo bëggee ci li Aba sol da nga def 77 def 435 09 10 ca calcio shop nga daal di koy am Mia mayaat ñu la bande annonce Aba ñu daal koy tëj ñun nag ña ngay dem ba Thiès jërë ngeen jëf ba samedi prochain incha allah bëggee